بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على إمام المرسلين وآله وصحبه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ci seen émission xam sa diine ci Malikia TV ñi ngi fas yéene waxtaane tamxarit muy weer wu sell wi di chahrullahi nga xam ne bi ñu laajee sang bu tedd bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ban woor moo gën ci koor yi mu tontu ne afdalu siyaami baada ramadaana koor yépp bi ci gën ginnaaw woor weeru koor ndax weeru koor mooy farata kooku moom yaakaar naa ne benn jullit sañu ko sàggane te amul ngant xamna ne lu nit ki texit texit wala lu mu topp topp bakkanam wala lu ko seytaane jekku jekku wala lu mu ragal ragal xiif wala lu mu ñàkk ñàkk jom su weeru koor ñëwee dana woor yaakaar naa ne loolu moom man de aw ci xel ñaar sama njort rafet na ci sama yaakaar dëgër na ne kii ki dul woor daal mooy ki am ngant nga xam yàlla teggil na ko ko. mu leer naññ di ay texte yu leer sang bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ko kooku moom mën naa bañ woor ak atte yi ci aju ci wàllu fiq boo delloo ci alquran dellu ci waxi sang bi boroom xam-xam yi leeral ko danga ci mën a jëriñu lu bare bare bari incha allah waaye ginnaaw weeru koor sang bi nee na woor ci weer wii ñu toll nga xam ne weer wi dafa màgg ba yàlla daf ko laaf ci boppam chahrullahi kon weer wi am na xorma weer wi màgg na boo ci defee lu baax dañ la koy fulal dañ la koy yokkal boo ci moyee yàlla def ci lu bon itam sa bakkaar dafay gën a yokk jullit bi loolu la war a jëkk xam bala ngay ittewoo naan cere ji neex na wala neexul ittewool xam weer wi dëgg-dëgg lan mooy gëddaam ban place la am ci suñu borom subhanahu wa taala ban worma la am wéru tabaski wala bok diggi tabaski tam xarit ak wéru rajab ñent wér yi yàlla def na ñent wér yu am xorma la kenn du ci tour deret kenn du ci xex kenn du ci def lu bon donte lolu daganul ci ben wér waaye ci wér yi nak la gëna doy tuwaar motax ñi ci xex ñëpp war nañoo tëral seen i ngànnaay xeex sax moo warul xeex boo xam ne ci bakkan la tegu nangu alalu nit ëpp ko doole dal ci kawam rey ay population faagaagal nangu ay doomi jàmbur nangu ay soxnay jàmbur nangu ay tooli jàmbur ñëw occupé dëkku jàmbur def ko ci kaw doole kooku mbokk yi lislaam santaane ko damay wax ne alal ji nga xam ni ñi ngi koy jël muy ay nangami milliards yi dollars ñu ko doon waajale ay ngannaay ana ngànnaay yi tey ñii naan dem nañ ci weer ñii naan nangam ñii naan nangam am nañu ay nangamu dégg ci wàllu nucléaire mu nekk course boo xam ne eh, tubaab yi yàgg nañ cee xëccu diggante américains yi diggante russe yi ñii ñenn ñi lu ñu am ci ay tête nucléaire kenn xamul naka la toll te loolu mbokk yi la koy defar alal ju dul jeex la alal jooju mbokk yi bu nit ñi de joxante woon loxo nekk ci jàmm séddale ko àdduna bi nga xam ne ñëpp ko bokk ndax suuf si ko moom frontières yi fi nekk ay frontières artificielles rek la ñu delloo ko ci ñi néew doole ñi nga xam ne bii ñi ngi tëdd amuñu lu ñu lekk amuñu fu ñu fajoo amuñu ay hôpitaux amuñu ay daara yu ñu jànge ñii di fanaan ci mbedd yi ñii dañoo ragg ràgg ngir ñàkk lekk lépp lañu ñu manqué alal jooju mbokk yi buñ ko delloo woon ci njaboot gi kon lu baree bari dana mën a ñàkk bu loolu passé mbokk yi ma ne kon ñeenti weer yii weer yu yàlla wormaal la weer wii ñu toll ak ñaar yi nga xam ne moo jàlloon ak weeru rajab bii ñëw kon sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw weeru koor woor ci weer wii moo gën mais li ñuy laaj mooy ndax sëng bi dafa bëgg ñu woor weer wii yëpp wala déet déedéet wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj koor gi du farata dañu ko sopp ngëneel la boo ko defee am yiw am tiyaabo te xam ngeen tiyaabo du doy ku ci nekk ci ñun bëgg nga boo dajeeg sa borom bu ñuy peser sa ñaari balance balance balance su yiw bi gën a diis balance su sa faat fa amma man thaqulat mawazinu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هوية لولو نان بوكو يكو كو بغ دا غاي بروفيتو تي فاغ يو دي فريت لو باخ يالا دي لاكو دنتيل بو بو ألغي بو نيوي ني بريزانتي لي ساي دوسيي فك nga am yiwu bare bare bare bare motax wer wi sang bi neena wor ci mo gën djublu wu ci nak nga wor wer wi lañu bëgg ku ko wor waxna naa leen ne leen talata bi passé mo doon ben fan àndal ak man nga wañi wàññi talaata àllarba alxemes ajjuma samedi dimanche altine talata muy juróom-ñetti fan alarba mom modi tasua moy mooy bisu tam xarit bi waye ashura moy fukkeelu bis bi te mooy alxemes bis boobu sallallahu alayhi wa sallama moom la bëgg ñu woor ko nee nañu sang bi bi mu ñëwee Madina alayhi salaatu wa ba léegi ñu ngi ci gàddaay gi gàddaay gi amewul woon ci weer wi waaye ci atum atum jullit ñi ci la gàddaay gi amee woon am na ñu ne ci rabiul awal la amee woon waaye bi mu ñëwee Madina fekk fa yahudi sang bu tedd bi bëggul woona a juuyoo ak ñoom comme que ñoo bokk yore téere yoo xam ne ci asamaan la bàyyi ko tawa màkka lëjal nañ ko munaafiqoon yaa ngi fii te bëggula wéet daana bàyyi xel yahuud yi li ñuy def benn bis mu toog laaj gis ne yahuud yi nekk Madina fukkeelu fan ci weeru tam xarit bu ñëwee dañ koy woor صلى الله عليه وسلم لاج نلن لوتاخ نين دي وور بيس بي تا موي بوسو فوكي لو فان تا موي الخميس بي دي نيو ني نكو موي بيس بيغا خامني بي فرعون لا جيلي يونت يالا موسى عليه السلام اك بنو اسرائيل با بغ لينا فاغاغال يالا جوخ نديغال يونت يالا موسى نيكو генال nga andak banu israël nga jaar ci géej yow danga mucc ak ñi ànd ak yow na dana la topp ak gàngooram waaye bu ñu duggee ci biir géej gi danaa leen labal Moussa jël yat wa dóor géej gi xar mu dugg ak ñi mu àndal na topp leen yonent yàlla Moussa génn ak ñamu àndaloon yàlla labal firawna kon fukkeelu fan ci weeru tam xarit ci la yàlla musaloon yonent yàlla musa alayhi salam ci bundu khutali ko fir'auna don def ak équipe ba mu andalon motax yahudi di wor bisu fukki fan ci wéru muharram sallallahu alayhi wa sallam ne len waw ana axaqu bi musa minkum yen da ngayena wax ne musa moy sen yonent man sama mbokum yonent la tamay kilifam kon ma len ci gëna yey dal di koy wor loolu motax ñu ne yawmu Ashura bis bu reey la ci diine l'islam ta modi al khamis bi di ñëw fukkeelu fan bi la wax de moy Ashura bis bu reey la ci l'islam bis la bo xamne yàlla def nako ko muy ndabal jamono pour nangu tuub bo ci tuube yàlla man na la ko nangul sayyiduna ali radiyallahu anhu neena sang bu tedd bi dafa wax ne bu fekkente bi amna ben bis boy wor wala ben wer boy wor ginaaw ramadan نينا فصوم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين تلا يالا جيغلون أو نت يالا دانا تي جيغل إتم كيب كو خمنا كي دانا توب كون ني باي تي خيل بو باخ باخ باخ تلا يالا جيغلون سونو مام آدم عليه السلام بامو دفي لاكو يالا تري وون غالو يونت يالا نوح غا إتم بامو ووي نيت ني ني باني wama amana maahu illa qalil yàlla ne ko yettal gaal nga dugg ci yaag sa njaboot gi la nangul mu dugg ci bisu tam xarit bisu fukki fan ci la gaar ga teer yonent yàlla nuux mucc njaboot ga mu àndaloon mucc moo tax sayiduna abu moussa al ashari radiallahu anhu daana wax ne hada yowmun taaba allahu fihi ala qawmin bisa ngi nii boo xam ne yàlla jéggal de ci aw nit fajaaluuhu salatan wa sawman na ngeen ciy julli te ngeen def ko muy bisu koor te mooy bisu fukkeelu fan ci weeru tam xarit axrajahu alxaafid abu muusa te itam rafetal na ko sallallahu alayhi wa sallam wax yahudi ne leen man maa leen gën a yey ci muusa ana awlaa bi muusa minkum ba noppi digle ne nañ ko woor loolu bi muy door a ñëw madina la bimu demé ba l'islam taxaw l'islam am doole état islamique taxaw nga xamné soxlatul dara yahudi islam taxaw na commencé nañu sax génn Medina di ubbi lu bare bare bare bare fofu nak sang bi muné man day suma yàlla mayé bama ma déwén la in baqitu ila qabilin أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع بقول وون دبوك يهودي 100% تي لي دف دونت بيس بي نيو وور سين بيس لا وون دنج كو دون وور نخ تي لا يونت يالله موسى موتي وون تي مبغلوم فرعون سانغ بي بغ نكو وور نخ نينا مو نيو غنا يي مو غنا يي يهودي تي نت يالله موسى با تخ مو ديغ لنا نكو وور تا سانغ بي لومو ديغ تي يالله لا باي لا بايكو waaye nag bëggul dëppook yahuud yi cent pour cent mu ne suma yàlla mayee ba mu fekki déwén la asuuman na tasia juróom-ñeenteelu fan bi danaa ko woor te mooy àllarba kon moo tax boroom xam-xam yi ne kon rafet na comme que sang bi wax na loolu kon yoonal na ko ku yàlla baaxee ba nga fekki juróom-ñeenteelu fan ci weeru tam xarit te moo di àllarba bii di ñëw mooy neuvième jour ci arab moom la ñuy tuddee taasu'a u taasu'a u mooy juróom-ñeenteelu fan bi fukkeelu fan bi mooy ashura u fukkeelu fan bi ak benn mooy haadu shaa u ñett yooyu moo fi nekk taasu'a u ashura u haadu shaa u moo tax boroom xam-xam yi ne kuy woor bul woor rek ashura bi waaye fexeel ba woor benn fan benn benn fan bi jiitu ko muy bisu juróom-ñeenteel bi walla boo wooree fukkeel bi itam nga tofal ci ba ak pour nga mën a ak yahudi lol la sang bi waxoon la in ishtu ila qaabilin la asuuman na kon mbok yi yow mi may setan di maliki ya TV maa ngi lay ndokkeel ci at mu bees mi maa ngi lay ndokkeel ci tam xarit gi na nga ci profito man tam ma profito ci képp koo xam ne da ngaa taqoon bari ay bakkaar bëgg yàlla faral la ko nga tuub koo xam ne kii da bëgg yiw say bonus bariwul nga bëgg yàlla dencal la ay ngëneel fexeel ba weer wii bul ko bàyyi mu génn mukk te wooruloo lu bon bon nga woo bisu taasuwaa bi woor bisu aasuraa bi soo ko mënee mbokk yi sa boo dana yokk sa yiw dana yokk ci sa diggante sa borom kon sallallahu alayhi wa sallam amul benn bis bum daan woor bu ko gënal bisu ashura xanaa wa arafaak ak yu mel noonu fa tabarakallahu moo tax ba ko benn waaye laajee ne ko yaa rasulallah woor bisu ashura lan moo ci nekk ci ngëneel mu ne ko li ci nekk ci ngëneel moo di ahtasibu ala allahi an yukaffira assanata allati qablahu maa ngi dagaan sama borom maa ngi yaakaar ci sama borom di rafet njort ci moom waxil la rek bàyyi xorma boromam waaw te adduban ma alxadrati ndax sallallahu alayhi wa sallam moo ciy exemple waaw ma zaagal basaru wa ma taxa laqad raa min ayati rabbihi al kubra yàlla nee na bokk na ci li ma neex ci sama ndaw lii bi mu ko invité gan ngan ba mu ñëw ci sama pays ba nee na bët bi xoolu lu warta xool xam nga am na gan ñoo xam ne buñ duggee ci kër balaa ñuy toog danañu lëñ bët kër gi xam noo tooge ñaata néeg nga am say fatey na mu mel say fan la dëkk ñaata doom nga am lan la ñuy def ñi ngi jàng jànguñu sëy nañu sëyuñu am nañu liggéey amuñu liggéey lépp danañ ko gëstu te gan sob gan du yeewi bëy ku dugg ci kër jàmbur da war a yem mag ñi daana ñu def sax su gan ñëwee ci kër gi ba dem woo jabot ki laaj leen gan gi fi ñëwoon lan la sol loolu yëpp dañ lay testé ndax yow sopp nga wala sobuloo nit nit nit dafay yemale boppam sang bi nag loolu la tagge suñu borom loolu la tagge sang bi sallallahu alayhi wa sallam ma zaagal basaru wa ma taxa mu ne man daal maa ngi jort di rafet njort ne woo bis bii daal ku ko woor incha allahu ci mbaaxu yàlla yàlla dana la jéggal bàkkaar yi nga xam ne da nga koo defoon ci at mi passé mbokk yi kan ci ñun moo mën a taxaw lu commencé ci sama bopp ak képp koo xam ne sañ naa la koo wax nga mel ni man wala nga tane ma cent 1442 bii passé tooñuloo ci yàlla moyuloo ci yàlla tooñuloo ci sa dëkkandoo tooñuloo ci fa ngay liggéeyi tooñuloo ci ci transport bi jëluloo ci alalu jàmbur wala wala ila axiri yooyu xeeti xaq yooyu xeeti bàkkaar ah ci dëgg-dëgg xëy na werante sax am na ndax xaqi doomu aadama yi dana ci dugg wala ci dugg waaye ñu rafet njort te yaakaar rek sang bi daal nee na am na ñu wax ne saxaa'ir yi la kabaa'ir yi bokk ci il faut que nga tuub ko waaye daal sang bi li mu wax moo di jortu naa ne bis bii ku ko woor yàlla dana la kaf kafaaraal bakkaaru at mi nga xam ne moo passé te mooy 1442 kon mbokkee loolu rek doy na li ci des si yëpp ay mbakkar feggu la ay bénéfice la waaye lii rek doy na te moo di fexe ba woor bisu taasuwaa te moo di àllarba bii di ñëw ñun ñëpp nañ ko waajal nañu préparé nañu daas fanaanal ba bu àllarba ñëwee bu kenn naan kafe ci bëccëg gi bu kenn ndékki am na ñoo xam ne bu ñu naanul kafe moom dootuñu nekk waaye nañu teel a xëdd fanaanoo yéene bi nag yéene dañ koy fanaanoo fa tabarakallahu donte am na boroomi xam-xam yu wax ne bu dee kooru naafila même soo fanaanoowul yéene mën ngaa dem ba ci digg bi sax sa xel dem ci nga ne naa woor jox ko yàlla am na ci ngir yu wax loolu waaye nañ ci ngiru imam malik moom fa tabarakallahu loolu dañ koy bañ kon maa ngi invité ndaw ku maa ngi invité looyeen yi mbayeen yi sàmbeen yi fa tabarakallahu kamara kamara yi daraame daraame yi nga xam ne dañoo ragal koor ñoom ñëpp maa ngi leen di invité ñu préparé waajal woor bisu taasuwaa bi te mooy àllarba ak bisu ashura bi ndax yàlla jéggal ñu sunu bakkaar yi nga xam ne defoon nañ ko ci at mi passé ma ne waaw mbokk yi li may laaj mooy ndax ku woor da ngay continuer di woor wala bu jot jotee bu dog jotee da nga dog wala déet sang bi de yàlla mayoon na ko moom muy def sawmul wisaal daana woor ba dog jot mu continuer kooram saxaaba yi bëgg ko ci roy mu ne ëpp naa def li ma mën munu leen ko man abitu inda rabbi yut'imu nii wa ci nii dem leen ngeen lekk moo gën ci yéen de man ci sama borom lay fanaan mu may leel di ma jox may naan kon dem leen ngeen lekk te ngeen naan waaw comme que suñu wooree ba ngoon dañuy dog ndax dafa aram ñu doge cere yaakaar ndax dafa aram ñu doge kuskus ndax aram dafa aram ñu doge ceeb aramul de doge ndawal aramul de comme que dañuy dog te lu ñu neex mën nañoo doge mën nañ koo doge fii ak lew na Lalu mo taxone mag ñi di ci profito pour jokkale ay mbokk rafetal digënté jokk mbokk ak dimbalante ñu né nañ défar ay reeri cere cere mom yaatuna fa tabarakallah njabot gi yépp man nañ ci lekk té comme ka daga bëgg wor njabot gi yépp wor nga défar cere bo défaré cere ba nopi nee naa sama dëkkëndo koko yakal dëkkëndom dëkkandoom de fi indi reeru ciéré yi kon yaakaar na ne gisuma ci lu ay gisuma ci lu bon teraanga la يلا نينا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا يلا نينا ماغي بيغ نيغا خامني ورسك ويني ام دا نانتي ساك دي ليل لا نيو غنا بيغ دو نيو جيل لا غنا بون امنا ньо خامني بون لاي ماي ييري ييري بو خامني بات بي ديمنا با تيبيكو بو خوتيكو بوكاي لم بوي لال مولاي توب باسي نانكو باسي باسي فوت نانكو فوتو فوت بامو راب بام وور لين نيوم بيغ تونكو moom la ñuy saraxe yàlla nee na boobu baaxul lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun pour nga am lu bax am payu yàlla ëllëg da ngay xol li nekk ci sa xol nga bëgg ko ta muy sa yére bi nga gëna a fonk nga jël ko joxe ko ci yoonu yàlla yàlla nee fofu lay testé ba xam nak yow bax nga wala baxul loolu nak xolo koy def yàlla yàlla may xol bu nangu la waaja waxon ba mbokk ma ñëwé diko ñaan xaaliss mu ne ko am naa ko de waaye xol bu ko xol bu ko joxe moo fi nekkul mbokk yi loolu yàlla nañ ci yàlla boole musal yàlla nañ yàlla yàlla nañ yàlla may wërsëg ba noppi yàlla baaxi ñu xol yu ko nangoo joxe ci yoonu yàlla kon loolu moo tax fa tabarakallahu nga ne lii nekk ci waaw wa yutcimuuna taama ala xubbihi miskinan koo xam ne kii miskin la koo xam ne yetiim la koo xam ne kii la amul lu mu lekk mi ngi ci ay loxo nga jox ko mu lekk jox ko yére mu sol mbokk yi man defe naa ne loolu ayul kon cere yii ñuy togg kenn waxul ne ci tam xarit la bokk déedéet waaye comme que dañuy woor te suñu wooree dañuy dog ko dog sañ ngaa yàkkal sa dëkkandoo bu doon ay ceeb la ñu def ko ceeb yónnee ko bu doon couscous marocain ñu def ko couscous marocain yónnee ko bu doon leneen ñu def ko leneen yónnee ko ci say dëkkandoo yàkkal sa ay wayjur dégg nga say soppe say xarit pour rek seen alaaq gën a dëgër seen mbokk lislaam gën a dëgër mbokk yi man de loolu gisuma ci lu ay buñ ko defoon ci beneen beneen bis itam aayul waaye kon daal li nga xamante ne bii mooy sunna nga xam ne mooy yëkkati jëfu jaam bi dëgg-dëgg moo di koor gi soo wooree ba noppi nag fa tabarakallahu nga war a dog defar sa ay teraanga yónnee yekkal say dëkkandoo jox miskin yi jox fuqaraa yi jox ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay loxo comme wa asiran mo lay xamal ne même yak yi buñ ci mënee yakal ñi nga xamne dañu nek sax ci loxo ba wañi wul dara ñu ànd ak bég ku gis lu jara a da ngay bég te at mu bes mu toll ni ku ko am mbokk yi fa tabarakallah am nga lo ci wara jàngi am nga lo ci wara a am nga lo ci wara a waye tam nak war nga bége ndam gi yàlla may sallallahu alayhi wa sallam ndam may ko l'islam mu bayiko makka mucc ci loxe yeferi ñëw Madina taxawal fa état islamique mu tambalé fa rayon ya di rayonné ba aksi tay ñu tok fi ci Sénégal ki tok Mali ki tok Guinée ki tok Arabie Saoudite ñun ñëpp ñu bokk di dundu baatu la ilaha illallah victoire ba fa la tàmbalee ñun lool lañuy bëggé bëggé wuñu lénen te nag sañ nañ ko ndax l'islam daf ci am dam fa hijratu rasuli lam takun firaran bal kanat intisara yonent bi dawul de yàlla ko jox ndigal ne ko rawaleel sa diine rawaleel ñi nga àndal ndax ñi ko sekkal ay ciaddo lañu ay kàccoor lañu bëgguñu lu baax bu ñu sajoon dane ñu ane yantir daawa bi yow ak say saxaba dootu leen ko fekk wa id yamkuru bika alladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru allah wallahu khairul makirin yàlla ne ko génnal mu génn am ndam yéeféer yi fekk si nañ ko badr mu faagaagal leen ñoom Shayba ñoom Utba Hamza ak Ali yu jaar ci seen kaw Ubayda jaar ci kaw dégg nga ka ca des fa tabaarakallaahu te booba lislaam a ngi tambuli a tàmbali ñëw balance bi xaw a renversé wu te am na lu ko waral waaye lislaam di am doole ba fatxu makka am waqul jaa alxaqu wa zahaqa albaatilu inna albaatila kaana zahuqa yonent bi bëgg naa umra ji ñu téye فتح مكه بام نيوي يونت بي اندك سولدار يي مو اندال ني نيو سي كابا جي فتح بارك الله اوبيكو خرم يفندكون نيو генنكو لاكوكو تساركو دماتكو سيدنا بلال الحبشي ما اميه بن خلف دون مبغل تا ديوام سي بدر سي لوخوم لا مودي جار ييك سي كو الله اكبر الله اكبر ña bañoon ñëpp nangu yonent bi ne leen yéen waa màkk yéen génne woon màkka maak samay mbokk suñuy alal ngeen confisqué ko tey ñëw naa ànd ak doole ji ngeen gis mais maada tafaaluuna maada tadunnuuna anni faailun bikum lan ngeen jortu ne tey moom laay jëflante ak yéen mënoon naa fayu am na doole ñu ne ko anta axun karim wabnu axin karim li ñu xam ci yow mooy mbokk mu tedd nga ku tedd la jur mu ne idhabu fa antumu tulaqa dem la dem leen libéré na mboolem mbokk yi ku jekko da ngay baale fayu amul njariñ ku jekku da ngay baale fayu amul njariñ kuy fayu doo sonn mukk kuy fayu doo noppalu mukk surtout bu fekkente ni bii xeex bi daf la bàyyi koo ci ay front yu baree baree bari bëgg a xeex ak kii bëgg a ak kii bëgg a ak kii fooy jëlee ndam kon mbokk yi at mu bees mi atu mbégte la tam xarit bisu mbégte la donte am ay événement yu naqari yu ci xew mais am lu neex lu ci xew ndam li ci islam am ndam ci at mii rek nga xam ne taarixu ñi ci at mii lañ ko jëlee donte gaday gi amewul ci weer wi waye ci at mi la amé modi al amul hijri kon jaadu nañu bekk ci contane ci fatabarakallah tabarakallahu teral ci njabot gi bok ci ñaan ah ñaan nak mom amul ben ñaan bo xamanteni bisa sa spécial amul ben ñaan bo xamne sa spécial amul ben ñaan tam dañ ne bo xam nañ ko def ci bis sangam bàyyi bis sangam bis yépp ci lañ wara ñaan waye dal mag ñi fonkon nañu ay ñaan ci bis bi ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ñaan gi danañ ko bàyyi ak asaatida yi ñoom alxaaji Mouhamadul Mansour ñoom alxaaji Malick Fall alxaaji Alioune Diagne alxaaji Abdoul Aziz Fall xëy na du ñàkk ñoom danañ ci ñëw ñaan yi nga xam ne mag ñi daanañ ko def ci bisu tamxarit bi ndax émission bi lang na li ma amoon ci temps ñi ngi may junj na ma jeex na kon ñi ngi ñaan yàlla mu boole ñu nangul suñu tamxarit ñu bàllonte ci xaq lu ci waay mën a def ci lu baax nga def ko koo mën a dimbale nga dimbale ko yàlla tax tabarakallah waaye koor gi daal nañ ci bàyyi xel ñaan gi itam ñaan gi yiw rek moo ci nekk xasbunallahu wa ni'mal wakil ci ñaan gi la bokk subhanallahi min al misani wa muntaha al ilmi wa mulaga rida wa zinat al arshi ba mu jeex ku ko ci mën a def itam nga def ko yiw rek la ngëneel la ñu ngi ñaan suñu borom yàlla nañu may ñu fekkewaat at yu baree baree bari te yàlla boole ñu nangul yàlla nañ yàlla jéggal suñuy bàkkaar bàkkaar yi ñu tay ak yi ñu tayul yu ñu def ci guddi ak yu ñu def ci bëccëg lu bàkkaar rëy rëy bu jaam bi tuubee rek yàlla ubbil na la bunt na ci weer wi nga xam ne weeru tuub la ña yàlla di nagul seen tuub na mu ko nangu la woon suñu mam aadama yàlla nañ ko yàlla boole def la noonu mbokk yi ñu joxante loxo soppante bëggante suturaalante bañ bañ bañ bañ a xaw wi kenn loo xam ci nit ba da ko ba di ko wax nit xam na ci yow lu ko gën a rëy te waxu ko kenn matul ku dul yàlla yal yàlla boole jéggal yal nañ yàlla boole yërëm laa kamala illa lillah bu ci kenn fëgg sa dënn bu kenn naw sa jëf bu kenn xew kenn kenn gënul kenn inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla nee ne ki gën mooy ki gën a ragal yàlla ngëneel nekkul ci askan nekkul ci sant nekkul ci xam nekkul ci juddu nekkul sax ci yonente bee sama maam bu la sang bi juree te gëmuloo ko du la jariñ dara ana bàyyi mii ne kon nangu mbir makk ñoo ko xeex ñoo ko génnee makk ña nga safara tey ana salman jógee ca faris dem ba am garaatu salmaanu minna alal bayt ana bilal jógee xabasa ñu def ko jaam mu dema dem ba nekk noddukatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak yonent bi dox yonent bi ne bilal maa ngi dégg sa dàll yi ma ngay karbate ca dëru àjjana ya te waxu ci aboubacar bilal mi ñu doon xeeb def ko jaam dënd ko di teg ay xeer ci dëndam dem na ba nekk noddukatu yonent bi ànd ak sang bi mu ne ko sa daal loo ma aljanna ci waxin sa dàll yi nga sol mangi ngi dégg karbat yi di raisonner ci daru àjjana ana sohaybu ar kon mbok yi l'islam moy yekati ñep abil islam la abali siwaahu idha iftakharu bi qais aw tamimi diw toro dala diw jam la diw nangam l'islam xamul lool ñun ñep ay gor lañu ku ci gëna jaamu yàlla jox yàlla li mom yow la yàlla gëna soxla هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقرا باسم ربك bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي